bisimilah rahmaani rahim mbokki jullit yi yéen ñiy topp seen kër gi di Serigne Babacar Diop TV ñu ngi àndaat ak yéen ci baaxi askan wi ak mboolem ni ñuy topp ci ay xam-xam ak ay njëriñ waaye toll tolluwaay jamono. kon Serigne bi dañuy bëgg a ubbiwaat jotaay yi ak waxtaan yi rek xanaa dañ lay bàyyi nga nuyoog ni ñuy seetaan mbokki internet yi suñ ñoppee ñu dugg ci jotaay bi ak laaj yi sëriñ Babacar ñu ngi lay nuyu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بريء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أني أشهد أنك أنت الواحد أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد أسألك العفو والعافية اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم مجيد rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli di nuyu waa Sénégal yëpp mbokk internet yi ñuy suivre di nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw kenn wax ahlan jërëjëf sëriñ bi ci bu am solo boobu ñu ngi ñaan suñu kàddu fekk ci jàmm mboolem ñu ngi taataan kon dañuy ñëw rek dugg ci suñu jotaay bu am solo bi nga xamante ni jagleeloon nañ ko jinne yi muy melokaanu jinne di eh, kër gu am solo waaye di jotaay bu am solo boobu tamit da ciy jàngale maanaam mboolem jinne yi seen jëfin ak relation bi ni ñu am ak jinne yi sëriñ bu ñu duggee ci laaj rek xanaa dañuy njëkkante waxtu wi eh, actualité bi nga xamante ni weesu nañ ko ak li ñuy dund mooy élection yi ku dégg xam ni ni mu amee ñuy laaj mel ni gis nañ benn leader boo xamante ni taxaw na bokk ci benn coalition bu am doole. te lu mu dugal loxoom rek da gis lu ci deret amee coow am ci xeex am ci yooyu melokaan yooyu ak jëfin yooyu dañuy bëgg a xam jinne ban relation la am ci nit ku nar a doon kilifa ak ku ñu nar a dégg borom tur Sëriñ Babacar waaw xam nga bu bu waxee bu yàlla ne xuli xatul malaayikatu waa xulixa eh, aljaanu aadama bi maa wasaku lakum soo déggee loolu da gis ci biir que ni malaaka moom leer la koo xam ne daf lay junj lu mel ni jant lu mel ni weex lu mel ni biddiw yooyu lay junj waaw nga gis ne bu dee jinne min maay jin min naar lu tàng lu yëngatu euh, lu nëbbu xam nga ma loo xam ne lu bëri bruit lu maa lu sakkan aadama mu ne kom kom comme ni bindee lañ ko bindee doomu aadama nag moom boole na ñaar yëpp boole na loo xam ne malaaka am na ko ak loo xam ne jinne am na ko moo tax doomu aadama heure su wootee moo xam euh, maanaam kilifa ak àdduna la wala kilifa diina ba ca yonant wala awlu yaaw kenn ku ci nekk soo wootee sa mbooloo dam ñoo gunge nga xam ne ay dina lañu doon kon daal liñ mën a dégg mooy eh, borom coalition boobu eh, digg laaj ndombal tànk tamit mbokk waa Casamance mais dafa am yenn jinne yu am relation ab alaaka ci biir jëngoom wala waaw xam nga maanaam heure su nit ki maanaam dee oote ñu ko yàlla day jàppale ni muy tàggatee nit ñu ànd ak moom noonu lay tàggatee jinne yi ñu koy jàppale itam moo xam moom mu xam ko ak mu ñàkk ko xam waaye noonu la mu si demee buur yi bu jëkk bu ñu musaan di xare euh, maanaam ni daal yilifee doomu aadama yi maanaam ànd bi ñu ànd ak jinne yi jinne yi di leen jàppale moo tax nit ñi di leen wekk ñoom ñu dañu xam-xam ndax jinne boo maanaam boo xamul dara mu ànd ak moom. kon wala boo nekkee koo xam ne euh, amoo taxawu boo xam ne suñu borom taxawu na la ko ñoom duñ la ban façon jinne moo ànd ak moom mi xamante ne lu mu dugal loxo mu tuur deret ñu dégg ci ay dee ñu dégg ci ay gaañu gaañu ay jafe ak nit ñu ci ci kooku xamante ni. xam euh, daf ci am loo xam mooy dox. maanaam bu ñu ko dee wax. gis nañu daal kenn ci leader politique yi koo xam ne fi ne maanaam ñu koy jàppale kuy dina jikko ñu koy jàppale Munaasirin la tudd. Munaasira. Munaasirin. Munaasirin. waaw ñooñu jàppale rek maanaam soo jaar da kon dégg nañ ko ñoo ko déggandoo kilifa gi nga xamante ni am na relation ak jinne yooyu tudd mu ngi noonu ñoo ko déggandoo sëñ Babacar bu bëggee. wàccaat ci yeneen suaal yi yeneen laaj yi bëgg xam biir jinne yoy relation bi am nit ñi ndax jinne bu goor bu and ak jigen bu and ak jigen dañ koy tuddé falu rap jinne bu jigen bu and ak goor ñu tuddu ko gelu rap ana biir couple bo biir couple bi nga xamanteni nit ki neena ci muy jëkkër wala jabar ana ban effet wala ban ban inconvénient la faru rap wala geru rap di amal ki nga xamante ni moo ne ci biir sëy waaw bu fekkee ne jigéen joo xam dafay dafay sëy am borom kër am tororab sëyam du neex si ay jafe-jafe ay xol yu tàng ay ëmb yu tuur ay euh, avortement ay règles yu xam la mu la àgg sax ci mën naa sole jëkkër ji wala mu xëpp ko ndox mu tàng loolu yëpp ngir xool bu tàng. waaw ngir xool bu tàng jëne ji nga xam ne dafa ànd ak jigéen ji nekk ci buum noonu la koy def muy corora daal léegi sax dangay sax euh, jinne maanaam góor dina am dawaru jinne ama moom doom yaa ngi dégg bu baax li may wax de góor nit dana am nit góor mhm, moom góor dana am dawaru jinne Mm-hmm. ama man ama moom doom bu fi nekkee di dund mm-hmm. maanaam coow amul mm-hmm. parce que moom xam na nu muy jëflante ak moom mais bu fi jógee léegi ba ñu war def ndonool yi ñoom fu daa jox leen seen wàll bu ñu leen joxu seen wàll mooy waral day gis boo demee bëri euh, kër gi bu fi jógee ndonoo amee léegi ba ñu miraas ba pare kër gi kenn du fi mën a dëkk ndax maanaam boo toogee ñëw fekk cin li am suuf. Mhm. wala nga toog ba guddi dégg ay bool yu yëngatu. Mhm. wala mel ni porte yi day frappé. Mhm. soo génne doo gis dara. fekk moom day war ne moom dafa war a jot wàll. léegi boobu il faut xam-xam mooy ñëw mën a mën koo mën koo mën koo dalal. ndax da gis ñoo xam ne tey mën nañoo. Euh, seen seen waajur jógee fi ñu jël kër gi jaay ko. Mhm. ñoom ku nekk séddoo. Mhm. xam bi ñu daal koy toj. Mhm. comprendre nga wala. Euh, dutu am toppatoo. fekk ne am na maanaam boroom kër gi maanaam boroom kër gi am na jawru jinne ji mu nekk lool. ju mu àndaloon ju mu àndaloon. léegi nag dañuy commencé di manifester wu di wane meram. ak dooleem di wane ne moom. ci kër gi la bokk te doom doom la ci kër gi. Hmm. te ñu bëri dañu comprendre loolu. ndeysaan loolu loolu loolu nag beneen monde la ci biir monde yi xëy a kon moo tax ban monde moom la existé ñoom ñiy def loolu ñoom jinne yooyu. nga xam ne jinne moom muy aalamul jinne boo demee malakut dafa am aalamu aalamu ne le mboolem ruu doomu aadama yi foofu la nekk. Hmm. aalamu jinne nekk nii. Hmm. al malal ahla mhm. moom tiim leen. Mhm, tiim leen malal ahla. yaa ngi dee wax ji. Mhm. Euh, ba tey. baytil maamuur. tam nekk nekk ca wet ga. nga xam ne jinne ku ci sell rek mën ngaa dugg foofu. foofu ngay dugg. waaw doomu aadama ku sell tam mën ngaa jëm malal ahla. waaw moo tax ki bu jaamoo yàlla. ba sell. maanaam day àgg ci. am darajay malayka jërëjëf sëriñ bi ci ci laaj yi xam naa sax ñu ngi dugg ci yeneen détails yi ngir njëkkante waxtu yi rek kon ana ki am faru rab wala geru rab mu ne ci biir sëy wala ñàkk ne ci biir sëy am na yoon di ñaan yoon bu ñu ko defalee xëy na loolu dana tàggale ak moom wala yàq yooyu dana tàggu moom ci rab bi da xam nga xanaa ñàkk xam waaye képp ku xam alxuraan ak dooleem loolu moo la mën a dimbali mhm. ci seyaatiin yi wala ci jinne yi fettoor yi wala lépp lu yàqal doomu aadama mhm. moo tax wan nazmu minal qur'aan maa huwa shifaa mhm. kon foofu rek la mbiri nekk mhm. leen loo loolu maanaam doon négociation boo xam ne day dem ak boo xam ne après li ci maanaam li ci nit ki di lor sax moo ëpp lu muy lu muy jëriñ jërëjëf Serigne Babacar kon ñoo ko déggandoo alxuraan rek mooy saafara bu rëy waaye fétis ak jalan yeneen yooyu hmm. kon yooyu mënu ci ab dara ndax loolu du dara hmm. comme niñ ko déggandoo kon ñu ngi àndoon ak sëñ kër Diop mu ngi fii ci parcelle rond-point 4 bi képp ko bëgg jot numéro yi incha allah dinañ ko affiché noonu ci baax écran bi nga jël 77 864 25 89 boobu mooy numéro bi nga xamante ni saa su ne dina am disponibilité ngir jot sëriñ bi kon sëriñ bi ñu ñu wàccaat ci jamono ak tolluwaay yi ñu ngi bëgg a jëm kaani bi ñu ngi bëgg a jël cëppandaw gi ñu ngi bëgg a àgg ci alxaaya fan la fa ñuy wax aaya ci kaamil lépp mat yàlla na ko yàlla def danoo gis ni mboolem ñi ñu tuddee sëriñ saa yi suñ musaara wax ci tolluwaay jamono waa jamono dañ ni di déglu ngir di dégg ci ñoom ngir taataan ay yoon ak ay njariñ ak ay tegtal yu wér yu leen joxe te ne buñ fa jàllee leen bëgg na ko am ban jàngat nga def ci sëriñ wala ñu ñuy tuddee sëriñ wala njabarkat yi ndax différenciation bi dafa bari te nit ñi mënuñu ko euh, séparer sëriñ kat sëriñ bi njabarkat bi wax ji ñuy wax ci ci indi ay jàngat te wax yi du doon dëgg ci dina gañe du gañe ana ban jàng nga ci am yow en tant que sëriñ waaw loolu sax dafa jiitu li ngay wax ni dafa jiitu sax kan bi ndax boo xoolee élection municipale yi passé gis nañu fi sëriñ soo xam ne génn nañ. mais sax élection yi du am. waaw ne élection yi du am am ñoom génn nañ ne diw mooy gañ te yàlla deful loolu ndax loolu rek yàlla dayoon ak màggam ak teddam ba tax na liy jariñ jaam bi daal inda akarum inda laay at xaatu. ki gën a tedd ki yàlla gën a teral ci doomu aadama yi. nga xam ne bu ñaanee mu may ko su tuubee mu jéggal ko su mu jox ko moo si gën a ragal yàlla su mhm. foofu noonu fa la mbur nekk mburu sëriñ foofu doo nga la nekk mhm. bëri looy sàbba bëri looy zikkat bëri looy nawaafil bëri looy jàng alxuraan moytandiku lekk rëj ba riba moytandiku njaaloo moytandiku fen ak moytandiku wor foofu la mbur sëriñ nekk fi ku la wax leneen lu yàlla kenn moomu ko غورم بي تام بيم كاي تاخوال موي رب العالمين عالم يف موكو مو تال اتي خيو تام دوكو واخ كين دوكو واخ كين فام لاخون موكو تيل بوكم كون فيني ني تاي غورم كرام سنسن يالا سولو ديبوتي سولو مينيستر سولو كونسيل يالا يالا لا موتا لا اله الا موي يالا رك دي يالا لا اله الا موي يالا رك دي يالا كون جير جير سيرين بابكار نده موم موي فعال لما يور موي ديف ليكو نيه تام بولم كو مانا ديف ci biir ak gi nga defee te ku def bu ko neexee day fàq sa def gi nee mu tege nee mu ñëw def mm-hmm. bu rëddee bu rëddee kenn ku rëddaat ab rëdd mooy tax kon suñ Babacar xanaa lu lay dégg comme kàddu yi tàggatoo ak fii gay ndey jëm ak fii askan wi toll ci ñaan réew mi jàmm waaw yàlla yàlla andi fi coupe bi mu nekk njëglaayu Sénégal bi euh, lépp loo xam ne balaa la yàlla na ko yàlla fonk ndax gis nañ ne jamono bu nekk rek balaa moom mën naa mën naa wàcc waaye yàlla dafa ne ñaan rek moo fi jëlee balaa kon yàlla na fi yàlla jëlee balaa ak musiba ak lépp loo xamante ne rek nar naa xew ci dëkk bi lu nekk ay di wax salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. kon jërë ngeen jëf yéen ñi doon topp ci seen jotaay bi tudd melokaanu jinne kon xanaa nii rek lañ ko ànd yéen dégg nañ sëriñ bi ci macha allah ci yete yi ak jàngale yu am solo yi ak mboolem ne nga xam te ne saa su askan wi ñu ngi koy taataan muy jóge fi moom di ballu ci askan wi lépp rek muy seen njëriñ kon njëriñ ak lor yàllaa ko moom yàlla mooy ki nga xamante ni an nafu wa durru mina rahmaani ليس من البداد والسوداني كن جعل الله من الذين يستمعون القول فيتبع احسنه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته